euh, donc information qui a défrayé hier nuit la chronique dans le sud du pays avec euh, euh, près de 250 sujets bissau-guinéens donc euh, arrêtés par des jeunes patriotes avec eux des cartes d'identité nationale et donc des bulletins de vote à l'effigie du Beno Akar. Donc c'était l'information sur laquelle Ousmane Togo s'est apesanti, déplorant un peu ce qui se passe au niveau des frontières entre le Sénégal et la Mauritanie en temps à ce que cette élection soit une élection nationale, une élection qui concerne les citoyens du pays et non pas des étrangers. Entre autres choses, il est sur euh, les péripéties, justement, euh, pour qu'il puisse accomplir euh, ce devoir citoyen. lui, Ousmane Sonko est revenu, mais ce qu'il faut retenir, il vient de voter et il vient de dire, justement, tout son optimisme par rapport à l'issue du scrutin, en attendant, donc, Euh, Abdoulaye Bopp soo amul li ngay laaj rek. Mhm. Amady Khalilou Diémé depuis euh, ñu ngi lay jaajëfal Amady Khalil euh, Diémé def na synthèse boo am solo ci ay kàddu Ousmane sunko ñu mun caa jàpp ñaawlu na ñaa jóge bitim réew ñu bëgg leen fee dugal ngir ñu wote loole nag la gis ne warta mun a ne ndax bëgg na wot gu jaar yoon waaye nag dellusiwaat na ci enjeu yi nga xamante ne moom la élection yi am jàpp ne sax élection yi fi jaar yëpp bi moo ci gën a am solo Moustapha. mais ah, un homme ah, politique euh, son candidat. oui euh, mais li am solo rek moy je ma un ne enjeu bi moy tay ji dañu président. Mhm. bo euh, pour la première fois Sénégal ñu nan dañuy folli Abdou